gaay di dem Europe ñi di dem ay Suisse ak ay ay ay allemand man dama di dem ay Afghanistan ay Israël ay ay ay ay ay iran Iran Irak tan Tanzanie ñaari laaj yi nga laaj benn bi jëm ci li problème Kurdistan yi ak rewum turki lool nak da nek laaj bu laal ci histoire bu baaxa baax ba tax na neexul la cof euh, waxtaan wu yaatu la doon laaj ci man koo faram fàcce ba mu leer ay comme lii laaj ak tontu rek la dañ ci tënk li ci mën a leera ci tontu bi rek li des ñu leb ko ba beneen yoon ndax Kurdistan yi ñoom la seen histoire toll noonu moo tax neexut a tënk daa bari fuñ jaar ci àdduna bi bari ay guerre yu ñu sumb tey li ñuy bari bari ci àdduna bi it nekkandoowuñ menn réew toll nañ ci ñeent fukki million ak juróom ci ay doomu aadama biñ leen mujjee xayma réew miñ gën a baree mooy réewum Turquie am na xayma bu wax ne toll nañ fa ci fukki million ak juróom ci ay doomu aadama am na xayma bu leen yóbbu ci fukki million ak juróom-ñett ci ay doomu aadama gannaaw Turquie nag réew miñ gën a bare mooy Iran Irak Syrie du fofu dong it lañ nek bari nañ ci continent bu Europe ay rew yu bari yo xamne amna ay Kurdistan ci continent bu Asie it yenen rew yu am ay Kurdistan yu dul ñeenti rew yo yi ma lim ndax seen histoire mo ni tollak seen jaar way seen problème bu mujj bi leen booleeg turki nak wa turki dañoo wax ne leen rayal fukki ak ñaar ci seen benn base militaire bu nekk ci réewum Syrie ñu daal koy jëñ Kurdistan yi ne ñoom ñoo ko def loola waral armée bu Turquie jamono yi yëpp ñu amal ay raid aérien contre Kurdistan yi rawatina zone yi ñu gën a bare ci biir Syrie loolu sax tax na am ñu jàpp ne kon guerre Syrie bi moo waral problème mu Kurdistan yeeg waa Turquie te fekk guerre bi moom daa gën a xamu taal bi rek dolli ca problème yi amoon waaye naka jekk ñoom ñaar amoon nañ problème bu beru bu jote bu teg bi dara te problème boobee la ca gën a bari problème mu indépendance la Kurdistan yi dañoo bëgg moom seen bopp moom seen bopp goo xam ne tàmbalewul ci état bii fi nekk ci Turquie waaye ma nga tàmbalee ca ad-dawla al-usmaniya jamono yi xilaafal islamiya di taxaw tubaab yi ngir bëggoon a disperser jullit ñi tas al xilaafal islamiya te gisoon nañ ne Kurdistan yi amoon nañ doole ñu nekkoon ay jullit ñoom bari nañ. loolaa waral ñu ne leen woon yéen war ngeen a mën a am seen état wu bopp dañ leen koy cent 1920 gannaaw yéen am ngeen culture am ngeen aada am ngeen langue wu leen lënkale yéenu neen c'est normal ngeen war a mën a am état boo xam ne yéen képp yéen a koy moom. te fekk tubaab bi moom baaxu wuñoo digle lu mel noonu te teg ko ci bëggal kañ koy digal aw yiw li gën a bari dana am intérêt buñ ca laxas nga xam ko ak nga bañ koo xam fekk lañ jublu woon ci loolu ñaari mbir la bu njëkk mooy mën a doole kàttanu jullit ñi ndax kirdi yi dañoo nekk ñu am fit amuk njàmbaar te ñeme ab xeex loolu moom xeet lañ waxoon na ñëpp leen ko xamee cosaan ba léegi buñ sooboo ci mbir duñ ci gaaw a dellu gannaaw xeex wu xeet wu dëgër bopp lañ ci jàppante moo tax ñu bëggoon leen a teel a écarté ci mbir yi ñu mana a lapp ci ne jaare ko ci digg leen indépendance bu leen ci war a fekk buñ ko nangoo loolu mooy xaayda bi wax nekk ne fadiq tasud boo bëggee doonub sang boo fekkee mbooloo da ngay fexe ba dugal ak noonoo ak xiiroog ngaayoo seen biir bu ko defee yow yaay doxaat tànk jàmm ya yaay leen di jubalewaat yaay tëralaat système yaay tax ñu mën a àndaat nga mën caa tekkee doon seenub sang yor seen kàddu te boo defutoon noonu ci tasaare leen doo mën a am loolu kon tubaab yi bi ñëwee loolu la njëkk a jëfandikoo pour berkirde yi ñaareelu yéene ji ñu amaatoon mooy daane alxilaafa al islaamiya ndax ñoom amoon nañ seen système bopp ñoom tubaab yi système boo xam ne dafa jëm ci jël àdduna bi kilifteef yeeg koom yeeg sañ-sañ yeeg kàddu yeeg yëpp ñu daat koy téye ci ay kuréel yuñ koy yuñ koy teg ngir li gën a bari ci àdduna bi mën a des di doon ay way ñàkk ñu yilif leen ci kàddoog lépp ñu nekk ay way ay ay altoppe ci ñi gëna neew ci aduna bi système bobu di continuer té gisoon nañ na loolu mënta nak li fekk système bu leen di contre cadre mi ngi fi rawatina mu nekk système bo xamné day wuyoo diiné diiné jo xamné ne ci jàngalé nañu jaamo yalla waye dafa ag ci joxe ay tëralin ci lepp lu soxal dundu doomu adam moy l'islam ñu xam du système bu neexa a daane ndax organisation bi mu am mo deugar bu ñëkk bi moy am nañ ben dëkk bu leen boole muy al mukarrama seeni muhaddasat nek fa at mu jot ñu fay dajé la ëpp ci ñom dafa joxe faratay acc bu lolu jallé semaine bi danañ dajé fu ab julit nek ci gox ba nga nek ci seen barabu kay yalla def fa seen khutba discours bo xamne dañ cey teunk mbollem li jotta jall ci semaine bi joxe ci orientation nit ñi xam fa lañu tek seen tank lolu organisation la bo xamne ben la ci li fi nekk ñu gis na it ñoom am nañ benn téere bu leen lënkale nekk seen constitution ñoom ñëpp moo leen di àtte muy alquranul karim ñu gis ne am nañ alxilaafa al islaamiya état boo xam ne moo leen représenté ñoom ñëpp dajale ay réew yu bari réew yooyu yëpp am ay njiit ñu am lenn njiit am genn kàddu loolu it ñu gis ne kon buñ ko fi bëggee jële bëgg a samp li nga xamee ne nii moom lañ bëgg a samp il faut ñu jëlee ko fi ba mu jeex tàkk raay tàmbale ci kirdi yi digle indépendance 1920 ñetti at lañ ci teg 1923 ñu daal leen di trahir gannaaw bi lañ signé teg euh, ñi leen nanguloon war gi nar njaare ko ci Moustapha Kamal Atatürk ñu signé teg ñoom pacte boo xam ne day tax ñu mën a dagg daggee gox bobu di turki ak état islamique bi fi taxawoon nga xamne rew yu bare bare la bolé won ñu gis ne kon buñ joxé kurdi yi indépendance ñu dem bëru ju ne am seen réewum bop su boba ñom danañ jugaat ak doole ji ñu am ak seen fit ak seen jambar bëgg a wax al khilaf al islamiyya mo tax ñu daal leen di wor lañ leen digoon 1920 ginaaw ñett at ñu daal leen di nax joxuñ leen ko ndax lan nañ dag dagge fi nga xamé ni fi la état bi taxawoon réew yi nga xam ne ñoo ci boote woon yëpp tas ku ne dem ak sa bopp su ko defee jullit ñëpp dañuy maase séddalikoo ci ay réew séddalikoo ci ay kàddu ay kuréel kuréelaan ay njiit njiitaan ñenn ñu nekk ak seen njiit ñenn ñu nekk ak seen gis-gis ñenn ñu nekk ak fu ñu féete su ko defee ñoom dañuy mujj nekk al toppe comme ñëpp lu ñu amati benn influence du ci kàddu du ci njiit du ci dara parce que amatuñu état bi leen di représenté loolu wala ñu daal di war kir di daane al xilaafa al léegi indépendance boobu nga xam ne tubaab yi diggoon nañ ko Kirdige nag boobu jamono loolu moo leen te bàyyi ñu continuer jàpp ne war nañ ko mën a am fu ñu toll di amal ay yëngu-yëngal duñ dakkal benn yoon ci réew yi ñu amee doole yépp ba fii ñu toll tey kon loolu mooy li leen gën a booleeg Turquie problème mu indépendance la te du tirki dong lañ koy def réew yi ñu xaw a bari yépp dañ ko fay def fu mel ne Iran 1979 defoon nañ fa yëngu-yëngal bu tar boo xam loolu rek moo ko laloon seen état ba nga xam ne daal diggoon nañ leen ko. te ñu nekk xeet wu am seen làng bari lool ci àdduna bi fu nañu jaar fa gis nañ seeni morom yoo xam ne ñoom ñoo leen ko gën a mérité te am nañ ko kon jot nañu am seen état bu bopp waaye ba fii ñu tollu daal moom taxagul ñu am loolu ñu bëgg ba ci Irak gee ab dëkk lañu fa am rek buñ jagoo nii waaye taxul ñu am fa seen réewum bopp mu leen fa daggal comme niñ ko bëggee ci Turquie comme niñ ko bëggee feneen te mënta sotti tuba bi nak lolou seen programme la ñom ñoo fexé ba taskir distant yi sédalé leen ci réew yi tassari leen fu nañu nek fa ndax bëgguñu won force bi ñu am ak seen fit ak seen jambar ñu am ben état nek ben tank su boba kon lañ daané won turki ñom mën nañ ci delloosiwaat wala suñu xeexee mënuñ ci delloosiwaat su boobaa dana nek ay bataay yu ñu dul maîtriser lam leen di kuté du leen ko jaral motax ñu ñu far leen war ñak leen jox indépendance ba kon li leen booleeg turki ci dëgg-dëgg ci gattal ak tënk bëgg mom seen bop la dafa tollook léeg-léegi nag bu ñu rayee ci waa Turquie seeni soldaar laale day am bu tàng yëpp bu nit ñu bari dañuy defe ne euh, problème mu guerre beeg song yi ñu leen di song moo ko waral fekk seen problème jiitu woon na yooyu yëpp ñu jàll. di dem teg réewum